utal ko palanteer utal ko lokkee yépp yow dañ la ne ñëwal nga toog fexeel ba yow caabi yeeg lokkeeg buntu palanteer yi nañ fi nekk boo fiy jógee rek euh, buy euh, professeur di ñëw wala euh, Pape Maguette war a ñëw nga jox ko lenge yow loolu kese nañ la laaj loolu rek waaw maanaam liñ la ci sant yomb na neewuñu la peinture bi peintural Cheikh Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké hmm. ma jël ko ñu ñëwaat Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ñi ngi lay nuyu di dalal ci Walf TV leeru jamono bàyyi la nga nuyoo. bi yëpp. ok euh, ginnaaw nag euh, nuyooyu Cheikh Abdou. Maguette waaw. ma maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñi bi. waaw ñi ngi lay fay Cheikh Abdou. ñi ngi lay fay xam naa rek euh, ñu dugal kon laaj bi rek ginnaaw nuyoon yi. dialogue national bi bi ngeen woote woon bi newoon ca Diamniadio boobu yi teewoon nga fa. ak ñeneen yëkkati fa ay kàddu maanaam dialogue boobu mm, ginnaaw la ngeen fa boole yëpp jëlee la ngeen fa tënk conseil constitutionnel moom da ko rejeté teg ko ca sën ma ndax boobu dialogue mm, matoon naa woote ndax conseil constitutionnel mel na ne moom da ko niilal jox ko benn solo daal waa xam nga dialogue bi du caayank loi dialogue mm. national du loi ay nit yoo xamante dañu nekk ay acteur séq dara waxtaane ko président de la République mi nga xamante ne moo ko wootu woon def rapport def conclusion jébbal ko conséquence laaj ko xalaatam. Uh-huh. conséquence ne ko dialogue bii nga xamante ne moom nga ma jox xalaat bi nga xamante ne moom lañ ci wax. Mm. d'accord mu ci parce que méngoowul ak constat bi. kooku mm. yaakaar naa ni du loo xamante ni tey nit ñi mën na see commentaire lu dul conséquence liggéey bi mu def loolu la war a def. Mm-hmm. parce que bu fekkoonte ni day dialogue bi dafa nekk loo xamante ci loi la tënku. Mm-hmm. wala ci conseil la tënku su conséquence mm-hmm. la dana sensé wala mu xool beneen décision bu muy jël. bu dul lu dul lépp loo xam lan tënkoon ci dialogue bi maanaam annulé nañ ko parce que nag loolu méngoowul ak constat bi dañ doon waxtaan tënk date boo xam jàpp na ni comme con waa conseil conseil waxoon nañ président la république. na nga jàpp dat le meilleur délai meilleur bi jox ko woon àpp mu ne bala ma koo def dinaa waxtaan ñi nga xam ne acteurs yi acteurs yi nag mënoo see génn le candidat spolié parce que ay nit lan yoo xamante ne dañoo nekkoon ay candidat wër Sénégal. boo boolee quarante cinq candidats ça fait deux millions quatre cent mille et deux millions trois cent mille électeurs. kooku booy woote dara ci réew mi mënoo ni doo leen si boole waxtaan ak ñoom. waxtaan bi nag doxul woon muy décision boo xamante ni applicable pour que maanaam euh, conséquence la war koo dogal wala non non parce que nag loolu jàpp naa ni même ñun bañ koy def la ñu waxoon lu wér la lii ay proposition la du loo xamante ni dañ ko wax ni lii mooy luy wéy wala luy wéy conseil constitutionnel boo ko a avis yow yaa jël décision parce que si constitution bi président la république moom la conseil constitutionnel sant ci conseil pour que moom kese moo mën a def convocation corps électoral def décret pour convocation corps électoral te gis naa ni def na ko yaakaar naa nag après fi mu doon nii dana bëri. d'accord conseil constitutionnel génn na décision wax na ni léegi maanaam président la république na tëgg élection yi convoqué corps électoral bi le 31 mars. le 31 mars boo ko jëlee ak bisu tey bi. mi ngi nekk 25 jours. président la république 24 mm. mars ak bi say boole boole mu nekk 18 jours convocation bi président la République def méngoowul ak code électoral parce que code électoral nee campagne bi 21 jours la war a diire. léegi mm. kon jàpp naa ni li nga xamante ne président la République def muy fixé le 24 bi loolu dafay violer li nga xamante mooy code électoral bu fekkee modification am na parce que diire campagne bi il faut ñu sóoraale ko. Mm. te président la République ak biir campagne bi mutul 21 jours mais conséquence date bi mu def moom dafa suuraale ni li nga xam mooy le électoral bi 21 jours yi mu joxe te moom 25 jours la àpp ko yaakaar naa ni conséquence bi mu joxe mooy date bi nga xam moo gën a logique kàpp ci laay ñaan mu allé ñëw ak date bi parce que ba amee tiraillement rek président la automatiquement mën na sukkandiku ci article 54 pour dusul li nga xam mooy conséquence euh, bëgg-bëgg candidature spoliée yi loolu conseil constitutionnel da koo waaw xam nga ñun am ci ban jàngat parce que man mi wax a yow. dañu maa expolier. waaw ma am sama yéene mais sama yéene Sénégal moo ko ëpp. sama yéene Sénégal moo ko ëpp. man du ma ñàkk téeméeri millions ci parrainage ñàkk trente millions caution booba léegi joxuñu mu bi tëdd foofu noonu. mais conséquence ba jël décision décision conséquence moo ëpp sama bëgg-bëgg parce man li ma bëgg moo yor réew mi. te la ma wax tamit dama koo teg ci ay argument yu wér dama ne man nga xamante ne danaa baare conseil constitutionnel dafa am candidat boo xam ne candidat boo xam dafa am double nationalité. Mhm. te kooku man ak moom dañoo am doublon externe ak moom douze mille parrain léegi kooku retiré nañ ko bokkul si course bi. Mhm. léegi sama douze mille parrain yooyu nga xamante ne moom dafa am double nationalité léegi nan la may def te bu ma ko joxee ma ne candidat lii rek laa laaj. Mhm. d' accord euh, jërëjëf Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké. Euh, macha allah donc la candidat moom moo représenté euh, candidat les candidats spoliés ci édition spéciale bi kon parce que woote na joxe seen position mu mel ni Pape Sané am na lu mu ci bëgg. ma rek juste damay eggali sama dama man pour man da ngay réagir sax. non non man pour man spolié man gëw ma ko man rek moo fi am. spolié kenn jëlul axu kenn. waaw mais nag wax na ma lu ma neex nag. Oh. nee na dialogue national bi du loi. du loi du dara loolu rek moo am solo ci wax. nee na dialogue national moom reconnaître na ni du loi. amul amul mm-hmm. candidat bu ñu spolié ay mm-hmm. candidat yu conseil constitutionnel. recalé retenir ak recalé waaw bi yëpp. Mm-hmm. candidat yooyu naan dañ leen spolié. ñoom ñoo dugal ci lii. ñoo ci jàppale président la république. wax ils sont complices. parce que nag bu doon ay démocrate nañu. wala ay légaliste ay républicain comme nañ